asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi nuyu mbokki jullit yépp nuyub jullit di nuyub lislaam di ñaan sunu borom subhaanahu wa wa taala mu wàcc yéen mandeem ci sunu biir ak ak njéggalam ñu dellu siwaat nag ci sunu jotaayal yóbbulum ndaw ñi mooy jotaayal xam-xam waaye di jataayal fàttalikonte sunu bàyyee nag xel ci sunu jataay bii mujj ñu ngi ci doon jàngale ak di ci fàttali fi sëriñ bi di waxee ci xam-xam njariñ ji mu am ak xam-xam kat dafa ni wurus wu gànjar waaye xam-xam mooy li nga xamte te nii day jariñ nit ki ci àdduna ak àllaaxira wax na ne xam-xam kat boo ko amee nanga nga fexe jëfi ko ndax boo ko amee te jëfewoo jëfewoo ko it du am njariñ kon xam-xam ak jëfe xam-xam ja ñoo kon tey na ñu ngi tàmbali ci man talabal wusuula lil jalini man talabal wusuula ku sàkku ak yegg lil jalili ci yàlla mi nga xam te nii mooy aji màgg ta falyaxtasim na jàpp bi sunnati rasuli ci sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi an yu laazima ci mu takkoog aji topp yàlla laa yamil gog du jeng fi zaahirin ci lu feeñ wa baatinin ak ci lu nëbbu sabili walif yoon wa yaxuuduhu gog dana ko wamat bil xelmi ci xam-xam ba wala xibaada ak jaamu yàlla ga kamaayu rabbihi nekka koy tarbiyee sëriñu tarbiye ba bi tarkel xaada ci bàyyi xaada mu ne képp koo xam te ni sàkku nga jëm ci yàlla sàkku nga yegg ci yàlla na nga fexe ba am yóbbul gu doy ci tawxiid ak fiq ak tasawuf waaye boo ko amee nag na nga ko jëfee ci sunna sinante bi sallallahu alayhi wa sallam kon na nga fexe ba am yóbbalu xam-xam door a te nga dundal ko ci sunnaas yonent mu ne kat te bis boo amee loolu it boo gisee ab sëriñ boo xam te nii kat sëriñ la bu yegg ci yàlla ba man caa yeggale keneen ku dul moom nee na bul jiima demal sa bopp bu dee gis nga sëriñ bu yegg ci yàlla ba mën a yeggale ci yàlla kat bul jiima demal sa bopp kon na nga taqoo ak sëriñ boobee ndax mu wommat la jëmali ci ak jaamu yàlla gu wér na nga taxoo ak sëriñ boobee mu wommat la ci xam-xam ak ci ak jaamu yàlla ak ci bàyyi xaada waaye bul jima ma demal bopp sëriñ boobu nag la wax ne fii zahirin wa baatin du jeng mukk ci lu dut yàlla maanaam yàlla rek la dut mën ci lu feeñ nag ak ci lu nëbb amul fenn fu mu jeng fu dut ci yàlla sëriñ boobu la wax ne mu ne kooku boo ànd ak moom dina la wommat ci xam-xam ak ci jaamu yàlla ak bàyyi loola xaada aada nag mooy lépp loo xam ne danga ko def te amul njariñ mu bàyyi bokk na ci yooyu mooy lekk gu bari nelaw gu bari ak jaxasoo ak nit ñi bari ndax jaxasoo ak lu bari kat lu bari ci ëpp njariñ nga lu bari lu ci ëpp njariñ nga bari yooyu yëpp nag day fexe ba nga bàyyi ko tàmm ak wéetal yàlla tàmm lekk lu néew nga xam ne heure boo demee bay lekkati da bàyyi ba nga xam ne da lekk ngir dëgërlu ngir mën a jaam yàlla waaye lekkatoo ngir bànneexu bakkan rek wala ngir suur rek dée da ngay lekk ngir dëgërlu ngir a jëm ci jaam yàlla nelaw it noonu dangay ngay dem ba dootoo nelawati nelaw rek ba doyal dée dangay nelaw ngir dëgërlu ngir mën a jaam yàlla kon loolu moom dala koy dindi ba jeex ne la daan def di nelaw rek ngir da ngaa taam heure bii nga war a nelaw nelaw wala lekk lekk wala jaxasoo nit bari yooyu mu fexe na nga bàyyi ko mu ne fa kullu man képp koo xam te ni ixtasal beru na xabla wusuulihi njëkk ak sóoboom ak yeggam wala mu yotex te topput amra murabbin ndigalu sëriñu talibiya ba xat kamul gog mat na fa innahu naka moom yaquudu dana xuus fii baxri rada ci géeju alkade wala yaji u di ko dikke min hu ci moom say un dara abadal ba faw li annahu naka moom yaquuduhu dana ko mat ak saytaanu saytaane wan nafsu ak bànneex wal hawa wan nafsu ak bakkan wal hawa ak bànneex kama abaanu nekka ñu ko bérale nekka ñu ko leerale mu ne képp koo xam te nii kat beru na te topp benn sëriñ mooy sëriñu tarbiya boo xam te da koy wan yoonu yàlla nga xam dafa ñëw rek beru te yéggagut te topput benn sëriñ nee na kat na nga xam ne kon kooku dafa sóobu yoon woo xam ne yoonu alkane la yoonu alkane la sóobu te loolee mu sóobu du ca am dara lu dul alkane rek la ciy am alkane rek la ciy ndax kat sëriñ Tuubaa dafa bokk ci ñaari xaaj la ndax dafa am ñenn ñoo xam dañoo wax ne nit ki mën naa tëb rek sóobu yoonu yàlla ba yegg am ñoo xam dañ ne nit ki faaw dafay am ab sëriñ waaye mënut a tëb tëb rek sóobu yoonu yàlla te amut ab sëriñ moo tax mu ne ki nga xam te ne amut ab sëriñ xóolut ku ko teete ci yoonu yàlla dafa jékki-jékki rek jug sóobu ne day dem demal boppam ñu ne kooku na xam ne mi ngi ci yoonu alkane te loolu muy wutkat du ca am dara. ndax lan mu ne li annahu naka moom yaquuduhu dana ko womet ay seytaanu seytaane wan nafsu ak bakkan wal hawa ak bànneex kama abaan ni ko ñu ko leerale mu ne kat ndax kooku kat seytaane moo koy womat ak bakkanam ak bànneex ku seytaane di womet ak sa bakkan ak bànneex ne na kon kooku lam bëgg du ko am waaye nag waxuma du ko am waaye mën na caa jële ak alkande kon nag nit ki fexeel ba am ku wóor sëriñ bu yegg ci yàlla boo xam te ni dina mën a yeggal ci yàlla nga taxoo ak moom sëriñ boo xam te ni du mooy yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb sëriñ mat nga ànd ak moom mu teta la ci yoon yàlla kon daal loolu mooy dénkaani sëriñ bi ci wàllu xam-xam ak ki bëgg a yegg ci yàlla ki bëgg a sóobu yoonu yàlla ki bëgg a sóobu yoonu yàlla kon nag loolu lu bàyyi xel la fexeel ba gis sëriñ bu la doy boo xam te nii kat sëriñ la bu wér ne moom nii kat ku yegg ci yàlla la te mën na caa yeggale nga soobu ci aw yoonam ànd ak moom ndax kookee kat mooy taxaw taxawaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ndax lu mu yàgg-yàgg moom lim lay fi lay teg mooy yoonu yàlla yoonu yonente bi sallallahu waaye moom du mas jël daraam di ko jëmale ci saytaan wala lu neexul yàlla kon kooku taxawaay yonent dem sallallahu alayhi la kon nag nañ ko gën a bàyyi xel gën a xel ci bind yi te ko topp ñu ngi ñaan yàlla suñu moom defal dégg ak topp suñu moom sellal suñuy xol ba mën a taataan dëgg dëgg diine lislaam suñu moom defal ñu mujj rafet defal ñu xewal yu bari te barke kon dañuy wàcc kàddu yi di jox ñëpp di dajee ci beneen jataay bii di ñëw allah di nuyu ñëpp di baal ñëpp xaq di baal ñëpp xaq in uridu ila al islaaha mastataxtu ama tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey